sunu yaakaari ëllëg weesuwut sëriñ tuba sunu gannaaw bakkan amuñu lan lu ñu daarloo man caa teg baaraam lu dul sëriñ tuba Cheikh ibrahim mooy bi sëriñ tubaa mooy su njaboot sëriñ tuba yëpp wax ci Cheikh ibrahim ak diggam ak sëriñ tuba jërta sori ndax lu ñëpp gis la lu ñëpp teg bët la orma jim ko jox rek kenn joxul orma jox non noonu sëriñ tuba njëkk mu ñëw nit ñi bokk ak moom lal sëñ bi ànd ak ñoom dem tool di taxani waaye bi mu ñëwee mooy taxani di rooti di tëdd ci suuf boo ko sëñ bi yónnee mu daw ba turu làmp woowu jiitu na lii matt moom daan taxani di taal sëñ bi di toog ci biti bi bu bu taal bi xawee fay mu demaat euh, ximbali ko mu leer leer googee mooy turu làmp bi moo ko indi lii kon jëruta sori foofu diggam ak sëñ Tuubaa ñëpp xam nañu waaye orma ji ko ñaar ñi jox ci njaboot sëñ Tuubaa rek dafa doy sëkk muy sëñ Abdou ak euh, sëñ Fadil sëñ Abdou Lahad tuddee na Cheikh Ibra doom fii ñu nekk nii tey quartier Cheikh Ibra bi sëñ Abdou Lahad moo ko ñett bi ni pàkk la ko joxoon ngir njabootu Cheikh Ibra penc mi pencum Cheikh Ibra meneen penc mi Baye Fall yi am fee ci ci dëkk bi tam yaakaar naa ci sëñ Fall la kon ñoom ñëpp ku ne tuddee na ko doom waaye ku ne mandargal naa ko ci dëkk bi loo xam ne ak njabootam dañ fi daje di ko fàttaliku ba tax turam du fay ba ko tudd sëñ Tuubaa tudd ko ni ko sëñ Fall defee ci jumaa ji te tudde ko Lamp Fall kon nag nun ñi seen i njaboot ñoo leen war a rey ci loolu te xam ne Cheikh Ibra kenn dëbb ko Cheikh Ibra kenn jiitu ko ci sëñ bi kenn ëppale ko ci sëñ bi loolee mu am ci sëñ bi nag ku bëgg lu baax te bëgg a jëriñ sëñ bi foog nga roy ko ndax ci ormaaki teggin la ñu amee lu ne waaye ñàkk ormaak ñàkki teggin te la ñu ñàkki lu ne kon nag ñu ngi doon roy Cheikh Ibra baax dañ ñaan leeram gan ak liggéeyam ba njabootam gépp daj famille bépp nag kenn ba wasalaamaaleykum wa rahmatullah